Ousmane Sonko ak man ñoo bokk bokk xalaat bokk gis-gis bokk it ci ni ñu bëgg réew mi doxe loolu waxtaan nañu ma koy gërëm bu baax ndax moom ci boppam dellusi na di fàttali ne Bougane gi mooy njiit li njëkk wane sympathie am ànd ak moom ci jafe-jafe bi waaye ginnaaw bi ñu yëkkatee malaanu immunité muy manaalum kiiraayam jaaduloon na ñu ñëw